asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, xibaar bu tiis nga xam ni euh, international boo xam ni euh, génn na àdduna danañ ci ñëw ci biir xibaar yi waaye nag Sidath Thioune mi nga xam ne dafa attaqué lii di groupe Futurs Médias encore une fois bala noo dem ci loolee lépp ñu dem ci agression bi nga xam ni mi ngi amee woon ci asalem agression boobee daanaka ña ca bokkoon mbir maa ngi commencé bëgg a leer fële ca asalem agression bu doy waar boo xam ne nag mi ngi am. Euh, ci a juma ginnaaw bu sàkkoo ci yow mii di door a ñëw nga amoon ne ajjuma euh, vers onze heures trente ci source yi nga xam ni ñi ngi ko am taximan bi nag moom arrêté nañ ko euh, dix-huit heures ci ngoon maanaam li nga xam ne mooy càcc gi ba mu amee moom jàpp nañ ko ba nu ko jàppee tamit ci source yu baree bari yi nga xam ne ñi ngi koy wesaare moom moomee ci maalub li la di ab taxem fekk nañ ca maanaam xaalis euh, bu takkoo takku waaye nag du lépp li nga xam ni euh, jàpp na ni loole moom la jëloon waaye mocc ci xaalis bi fekk nañ ko ci ginnaaw arrière lile di ab véhicule am di oto ca maal ba loolee nekk jëf nag wax dëgg yàlla bu benn doomu aadama rafet luwul bu benn doomu aadama di ko gis di ci am mbégte ak xol bu sedd guy ndax yaakaar naa ni loo moomul ba ko fa loo moomul romb ko fa bu fekkee jëye ju mel ni am na nga ubbi sab taxi maanaam jël ànd ak loolee daw yaakaar naa ne bu fekkente ni mën ngaa daw yaa ngi nax sa bopp ndax technologie ak réewum Sénégal fi mu toll ci xarañteef ci wàllu enquête loolee ñu boo gis ak boo gisut yam tey euh, dafa am doole ndax bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo ko def ak taximan bi xëcc gin ko xëcc ak xëcc ko ba indi numéro bi loolee lépp tamit yaakaar naa ne fi mu toll ni nekk na loo xam ne lu gars yi war a bàyyi xel la jëf yu ñaaw ji dañ ko moytu moom moomee nag dañ ci loxoy takk der yi nga xam ni loolee ki ko yor daanaka mu nekk commissaire bu Biscuiterie yi moom it saisir na euh, li nga xam ne daanaka mooy mbir yooyee bu ko defee lépp gën a mën a leer xibaar bi nag Sidath Thioune la mu nekk xibaar boo xam ne nag yow mii ma seetaan nag am na ci loo xam ne mën na laa bañ a neex waaye ay kàddu la yu mu yëkkati jëmale ko ci groupe Futurs Médias moom moomee la nekk ba tey ji tamit ma nga fay liggéey liggéey bu ma nga fay liggéey du ma wax liggéey bu mucc ayib ndax fi mu toll nii dañ ko suspendre moom liggéeyatul ca kër ga waaye nag kenn dàq ko moom Sidath nag dafa yëkkati ay kàddu di xam ne ni groupe Futurs Médias ni muy def beneen télé bu moom sax bu ko doon def dana daano ay kàddoom la samay kàddu euh, bi ko gaa ñi laajee euh, maanaam euh, nan la mbir mi demee mu ni maanaam nga yor sab télévision maanaam ubbi beneen société ci biir boo xam ni maanaam day concurrence télé bi loolee njëganduura ko moom yow mii di ma seetaan xam nga ni SPT bi nga xam ne nag bari nañu muy produit ci kër ga ko mel ne ñoom saaneex seen émission bi moo koy doxal euh, ak émission bi nga xam ni moom la Eva di def nga xam ne émission boobu nga xam ni confidence peut-être moom lañ ko tuddee moom mooy def émission bi xam nga ko teyit yaakaar naa ni ci télé bi la ne mais euh, kii di njaganduur mu moom lay liggéeyal mu jàpp ni nag taxawaay bi nga xam ni moom la ñuy produire ay millions Euh, ci biir kër gi di ko defaat ci seen poste maanaam ci li mu xalaat mooy di jàppaat di liggéeyaat ci biir télé bi ba pare maanaam yor seen organe bu mag di ko xëccoog télé bi loolee bu yàggee télé bi dootul am lu mu fayee nit ñi bu fekkente ne ànd ngeen Sidath Thioune donte àndule nag moom ci lu bari ci kàddu yi mu yëkkati nag wax dëgg yàlla c'est très important ngeen bàyyi xel ci commentaire yi euh, maa ngi leen fay xaar Sidath Thioune li mu wax euh, ci télévision bii di TFM lii di logo bi ngeen wane ko ndax jël sa kër liggéeyukaay dugal ko ci télé bi di xëccanteeg moom ay contrat yoo xam ne ay millions la euh, ndax télé bi dana mën a doxati wala du mën a doxati loolee soxla naa ci seen commentaire waaye bu fekkente ne nag kii di Youssou nga xam ne moo nekk président directeur jiite télévision bu mag mag boobee ah, di TFM xam naa boobaak léegi tamit comme ni ko si daan diggante mag ak la moom kenn du ci waaye loolu nag njàngat la moo xam moom teg na ko ci taabal gi doonte nag gémmañ bi nàcc du wax jàmm moom euh, képp ko xam-xam ne jàmbaar la liggéeykat la tey wax dëgg yàlla mi ngi def ci Sénégal li mu war a def xanaa ñu ñaanal leen ñoom ñooñu ñëpp seen euh, jàmm ak salam ak aafiya ku ci mel ni Youssou Ndour Ndiaga Ndour ak ñi muy liggéeyandoo yëpp yàlla defal leen tawféex ba lépp lu ñu bëgg a liggéey ah, ci Sénégal mu am Sidaat Thioune nag yàlla suñu tegal ko ci teg ko loxo moom it ndax képp kuy sénégalais war ngaa ñaanal sa mbokkum sénégalais mu nekk ci jàmm ak salaam te it benn am benn jafe-jafe loolee bokk na ci li nga xam ne moom lañ tënkoon waaye nag lii nag mën nu koo bañ a ñëw ndax képp ku nekk sportif di liggéey ci li nga xam ne mooy youtube yi ak faneen ah, foo xam ne di nga wax ci wàllu football lii dina ah, la xawan naqari mais nag yàlla sunu borom lu mu dogal daa gën mu nekk ah, football kat bi nga xam ne nag ancien international la di Sega Sakho moom mi génn àdduna tey jii ci altine ji loole euh, di information yu fi rot léegi moom moom moomee ñu ñaanal ko yàlla suñu borom xare ko àjjana ca àjjana yi gën a kawe bu ngeen gisee image yi sax ci suuf nga xam ne international bi mu koy doon ak bi muy football club ak bi nga xamee ne bàyyi na football ñett yooyu nag mooy bu njëkk ak bi ci digg bi ak bi mujj loolee nag kon li ko desee mooy ngeen ñaanal ko jàmm ak salaam fa mu jóge jom gën a ko fii nga xam ni foofu la jóge yàlla suñu borom xare ko àjjana ca àjjana yi nga xam ni bu fekkente ne ay immeuble la immeuble ba ca gën a kawe mu teg ko fa jërë ngeen jëf ànd beeg ma Malick sport am na solo jërë ngeen